littérature arabe ñu fas yéene euh, waxtaane euh, coow li nga xamante ni moom moo am euh, ci succession wuutu ki lay di Mourchid Iyane Thiam ganna ba mu génnee àdduna ci bopp li lay di commission de concertation sur le croissant lunaire fan yi dégg ngeen coow bi nga xamante ni moo am ci commission boobule ba mu daal di am ñaar sax ba ñetti pàcc ñu fas yéene waxtaane jafe-jafe boobule nga xamante ni am na ci jamono bi nga xamante ni ñu ngi war a dem um koor naka lay daal di demee ak commission euh, yooyule ak tamit euh, daañu waxtaan ci euh, yenn ponk yu soxal actualité bi tamit ak importance su weeru kooru Ramadan nga xamante ni pratiquement dans une semaine daañu ko commencé ñu koy nuyu di ko dalal jàmm Imam Moustapha Samb aousubillahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi allazi bi nicmatihi tatimu alsalihat wasalaatu wasalaamu ala sayidi saadaat mbokk yi ñuy déglu yëpp ci réew mi fm ñu ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a sell di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di ñaan yàlla yal nañu yàlla nangul jotaay bi jéggal nu sunuy bàkkaar fajal nu sunuy aajo saafara sunuy jàngoro boole sunuy xol ñu ànd nekk benn su ngeen ma ko mayee mm-hmm. maa ngi jiital ci nuyoo bi al imaam ratib mm-hmm. Aliou Moussa Samb muy imaamu grande mosquée bu Dakar waaye itam di nuyu suñu imaam ratib ca Yoff mooy al imaam Mouhamed Ndoy ak mboolem imaam yi nga xamante ne ñoo nekk ci sunu association mm. waaye itam maa ngi nuyu képp koo xamee ne membre la ci konakok euh, muy euh, commission nationale euh, nu mu tuddati commission nationale bi nga xamante ne mm-hmm. moom lañu ñu ñoo ñu yebal ngir nu wax ci seen kàddu di ci jiital nag sunu coordonnateur mm-hmm. muy Ahmed Cissé Ndiéguène mm-hmm. yal na yàlla sàmm ko yal na yàlla jàppale ko ak mboolem ñi topp ci gannaawam di jàpp ci liggéey bi ginnaaw bi nga xamante ne ñu ngi ñaanal ki ñuy wax al murshid Iyane Thiam yal na ko yàlla dolli yërmande ah, boole ko ci xadaratu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam incha allah danañ ci ñëw waaye di nuyu mboolem ñi nga xamante ne ñu ngi taataan émission bi. voilà ñu lay remercier bu baax a baax ci sa teew euh, ci sa disponibilité mhm. euh, Imam Moustapha Samb peut-être dinañ la laaj ci historique gu commission de concertation euh, sur le croissant lunaire bi ñu koy samp euh, ban at la ñu ko samp bi ñu koy samp lan moo taxoon ñu samp ko euh, parce que xamoon nañu daal ki ko jiite moom mooy Mourchid Iyane Thiam comme ni nga ko waxee mu jóge fi mhm. ñu koy ñaanal suuf sedd ci kawam kon tey ji commission bi historique ma boo ñu doon wax euh, ci commission bi lan moo taxoon ñu samp ko ak ci ban at la ñu ko samp jërëjëf mm-hmm. donc euh, commission nationale de concertation sur euh, le croissant lunaire mm-hmm. euh, bi ñu koy samp c'était vers quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent quatre vingt mm-hmm. ndax boo ko seetee boobaak léegi commission bi dund na ñaar fukki at ak lu teg. 1978. 98. donc Euh, li taxoon ñu samp ko nag mooy jamono yooyu euh, réeroo bu bari dafa amoon ci njabootu lislaam yi nga xam ne euh, demoon nañ ba koor gi nga xamante ne mooy pare ñëw nii mm-hmm. pour ñu def ko ni mu ware dañ ci daan wuute ci dugg bi waaye daan ci wuute ci génn bi te lislaam dafa woote bennoo waatasimu bi hablillahi jamian la yàlla wax wala tafarraqu hmm. eh yéen jullit yi mooy leen ci bu yàlla ci lislaam ngeen nekk benn te bu leen wuute ndax wuute moom wax dëgg yàlla ah lislaam bëggu ko ah, bi nga xamante ne deme na noonu nga xam ne jamono yooyu ñaari koor ñaari koor korité mhm. walla ñett sax ñett sax daana am nga xam ne loolu rafetul réew moo xamee ne Sénégal euh, yaatuwul lool nit ñi bareyuñu lool vraiment ñuy am benn koorite wala ñaar wala ñett wala bu ñuy dugg ci koor gi mu am ñetti fan ñi dugg tey ñi suba ñi ginnaaw suba mhm. bu koorite jotee benn kër dangay gis kii tey lay koorite kii suba kii ginnaaw suba mhm. wax dëgg yàlla loolu dafa oroo ak li lislaam di oote mm. su ko defee a ah, ay bon volonté ci jamono mm. ku ci mel ni Mourchid Iyane Thiam yal na leen yàlla dolli xéewal mm. yal na ko yàlla dolli yërmande waaye ku mel ni euh, docteur Bouchra Dieye yàlla na ko yàlla jàppale ñoom ñooñu ak ñi mel ni ñoom jàppalante ak imam Maodo Sylla à mu nekkoon imam ratib ci grande mosquée bi ci Dakar mm-hmm. donc ñooñu ñoo waxtaan ci seen biir pour ne daal nañu jéem a dabaat njaboot gi delloosi leen ñu ànd nekk benn buñ ci waxtaaneek ak imam Maodo la yàlla na yàlla dolli koy leer dolli ko yërmande moom itam mu jox leen kàddu commission bi keroog la taxaw su ko defee ñu fexe ba bu séentu jotee ñu séentu buñ ko gisee na gis nañ ko ñëpp tënku ci buñ ko gisul ñu ne gisuñu ko def li nga xamante ne loolu la sharia wax ñëpp tënku ci loolu loolu yàlla dimbali na leen ci ba boobaak léegi am na ñaar fukki at ak lu teg euh, mais réussir nañ lu bari mais mais mais taxul ñuy worandoo di worandoo ba fi ñuy wax ak yéen ñi waaw euh, ñaari julli mi ngi am fii fii ci Sénégal voilà mu ngi am mhm. mais xam nga euh, bu ñu bu commission bi amul woon mën na gën a ñaaw. Mhm. waaw mais commission bi dabaatal na ci lu bare bare. pourtant am na ñu naan commission bi am amul amul njëriñ ci ci côté bi nga wax parce que wax nga ko bi ñu koy samp euh, woorandoo yi. Mhm. amoon na problème pour ñu umandoo koor. Mhm. Euh, pour kori tamit ça mm-hmm. posait problème ñaar ba ñetti korité parfois <laughs> sax mu ëpp ko ku nekk ak a ngay topp mm-hmm. mais gis nañ ni même bu fekkee commission bi am na ay acquis mm-hmm. ba léegi euh, koorandoo korendoo am amagul Sénégal ba léegi mi ngi am nul n'est parfait ñaari pàcc yi ba léegi nul n'est parfait mais li am solo taxawaay bi c'est-à-dire bi ñi nga xam ñoo ko séq di ci liggéey ñu ngi def seen kéemtalaayu kàttan pour réeroo ba am. ñan ñoo nekk ci commission bi. yan yan ah. tarixa yi ñu ngi ci parce que am ñoo xam ne euh, seen sëriñ la ñuy déglu ainsi de suite. Mhm. am ñoo xam ne ñu ngi référé wu ci màkka lu màkka mhm. def ñu def ko. Mhm. yan membre ñoo nekk ci biir. d'accord commission bi exactement. voilà léegi. Euh, bi ba nga xamante ne imaam Maodo Sylla joxe na kàddoom à l'époque. ñoom imaam euh, al Mourchid Iyane ak ñoom Bouchra. ak ñi ñu daan àndal à l'époque mhm. dañu tëral benn stratégie mhm. mooy fexe ba am ndigalal ñi nga xam ñoo jiite jullit yi ci senegal te mooy këru diine yi ñu dem ci kër yëpp mhm. dem nañu tuuba mu joxe seen kàddu bi ñu joxee seen kàddu boole leen ak ndaw bu nekk ci commission bi ñu dem Tiwaawan kazalik dem Laayeen ca yoof dem ci këri diine yëpp mm. sëñ mun Tall dem ci kër euh, nu mu tuddati waa kër Ahmed Ndiéguène ca cees euh, mm-hmm. dem Thiénaba dem Ndiassane ñoom ñëpp am nañ fi représentant ba tey jii ci biir commission bi ñoom ñëpp moom laa lay wax nii mm-hmm. jamono yooyu ñoom ñëpp am nañ ci représentant mais ba tey jii aussi bi nga xamee ne yàlla dogal na mm-hmm. euh, def li nga xam ne moo ko soob ci Mourchid Iyane mu génn àdduna léegi ña nga xamante ne ñoo àndoon ak moom dégg nga de mm-hmm. depuis vingt ans mm-hmm. ñi àndoon ak moom di liggéey dañu dañu dañu dañu waxtaan ci seen biir mm-hmm. ne nanu bàyyi ba quarante jours yi jeex ngir jox respe Mm. almursid mm. ñu door a lijjanti mbir commission bi. Mm. après loolu danañ ci ñëw. waaw ah, dinañ ci ñëw. waaw bon succession wu mursid succession bi voilà d' accord li tax mu jur coole. Euh, naka la waroon demee exactement. Mhm. mais kon. Euh, ñooñoo ci nekk léegi ñaata membre ñoo nekk ci biir commission bi. non fi mu ne mënuma la wax exactement. ma tant de membres la. Euh, mais li wér te wóor. Mhm. mooy këru diine yi moom. ñoom ñëpp am nañ fa représentant. Mhm. léegi am na association est-ce nañ vingt trente quarante ñu xam ñaata à peu près ñaata nit ñooy nekk ci commission bi. ñaata membre man daal ci sama xayma nii mhm. environ ay quinze jëm vingt personnes. ñoo nekk ci biir commission bi ñoo nekk ci commission bi. te am nañ ci représentant kili euh, maison religieuse yi nekk Sénégal yëpp. ñoom ñëpp ngi ci. est-ce que tamit dinañ ko leeral ci kanam. waaw est-ce que tamit associé woon nañ ci parce que souvent doon nañ ko wax parce que euh, àdduna day dox. dem nañ ba gis ñoom Maram Kayré astrologue ainsi de suite est-ce que ñoom ñi ngi ci biir wàllum science parce que ñoom tamit ah, li ñuy wax luñ mën a jàpp la luñ mën a gis la parce que ñoom la yàlla jox xam-xam ñuy mën a euh, lire asamaan si ainsi de suite bu ñu la waxee euh, weer bi dana génn tel jour wante bët du ko mën a gis ainsi de suite est-ce que associé ngeen si ku si demee ni ki ñoom Maram Kayre ainsi de suite ci biir commission bi léegi xam nga côté boobu mhm. mooy le côté scientifique voilà euh, loolu boroom xam-xam yi xam nga dañ ci wuute jubboowuñu ci mm. ne domaine boobu. Mhm. war nañ ci mën a sukkandiku moom kese pour di xool weer ndax ñëw na walla ñëwul. lu tax ah, maanaam xalaat yi. Mhm. Eh, xam nga domaine la boo xamee ne boroom xam-xam yi. Mhm. kenn ku ne da nga ci am xalaat dégg nga. ce que mën nañ ci sukkandiku walla déet. ba tax na commission bi nga xamante ne actuellement mooy dem nii dégg nga de commission la boo xamee ne moom ci texte yi nga xamante ne. moom la lislaam indi ba léegi ci lay sukkandiku mais dàquñu jamono ñëw ñu war a mën a toog ak scientifique yi jàppalante ak ñoom mhm. maanaam mu nekk loo xam mottalinte lay doon loolu lu war a mën a nekk la mais eggaguñu foofu duggaguñu bokk yéen daal yaatalagu leen pour scientifique yi dugg am na ñu naan sax commission bi dañ ko war a tas parce que ba léegi mm-hmm. Mm-hmm. déggoo mënul am mënul mënaguñoo woorandoo mënaguñoo woreendoo mm-hmm. dañoo war a jël mbir mi sax jox ko scientifique yi ñoom ñu koy gérer waaw lan ngay tontu ci loolu non loolu du mën a nekk ndax lan ndax mbir mi mbirum diine la mbiru lislaam la maanaam nekk scientifique kese taxul nga war a mën a dogal ci lislaam ak yu demee noonu il faut borom xam-xamu diine yi. Mhm. jël ko en charge mais nag ñoom mën nañ dimbale ko scientifique yi bu ko laajee. du dëgg. Mhm. mais pour ñu ne nañ ko tas bàyyi euh, scientifique yi ñu doxal loolu wax dëgg yàlla l'islam du doxee noonu. mais yow lan ngay wax imam Moustapha Samb ci ñi nga xamante ni ñoom euh, dañuy référé wu ci Màkka. voilà waaw lu màkk def ñoom moom la ñuy def. d'accord waaw lijjanti daal li am fii ñoom màkk la ñuy topp. d'accord lan nga ci mën a wax. d'accord loolu li ma ciy wax. Mhm. mooy euh, gis nga ñàkk juboo gi am ci senegal moo waral yenn groupe yi ne nañu référé ci màkk. Mhm. waaw sax ñoom man ni ma leen gisee référé ñu ci màkk rek mais ñoom dañu référé ci benn texte boo xamee ne. Mhm. li yonent bi wax ne suumu li ruyatihi wa aftiru li ruyatihi fa in ghumma aleykum fa akmilu iddata chaabana salaasina de nga euh, texte boobu dafa wax ne bu ngeen ko gisee oor leen su ngeen ooree dema dem ba gisaat ko oori leen mhm. mais ñaari séntu yi fu ngeen ko gisul na ngeen mottali bu dee ci séntu bu njëkk bi la. Mhm. pour dugg ci weer wi na ngeen mottali weeru koor euh, na ngeen mottali Chaabaan. Mhm. mu nekk trente. bu fekkee dem ngeen ba am vingt ci koor gi ngeen séentu mhm. bu ngeen ko gisee or bu ngeen ko gisul ngeen mottali. mu nekk trent wax boobu déggin yi daf ci uute. am ñu xam ne dañu wax ne. loolu dafa concerné ñëpp jullit yëpp. fu ñu gisee weer. moo xam Sénégal lañ ko gisee wala Arabie Saoudite wala même Amérique ñëpp war nañ war nañu war nañu tënku ci loolu loolu mhm. déggin la mais am ñu ne déedéet wax boobu ñiñ ko adressé mooy gox bu ne mhm. pays bu ne ñoom dañuy séentul seen bopp mhm. buñ ko gisee ñoom nañu or réew mu ne réew mu nekk buñ ko gisee nañu or buñ ko gisul Eh, nañu mottali loolu muy ñaari déggin mhm. léegi ñi nga xamee ne dañuy référé wu ci ay Arabie Saoudite ak yooyu ñooñu ah dañu jàpp ne fu ñu ko gisee rek war nañoo mën a mën a wari ci tënku ci ci ci anam boobu mhm. dégg nga loolu moo waral ñoom ñuy defee noonu mhm. waaw loolu moo waral loolu mais euh, comme ñaari gis-gis yooyu moo am bu ci waay tënku rek baax na mhm. mais jullit yi bu ñu waxtaanoon ci seen biir xam na jamono bi ñu toll euh, nu mu tuddati lu xew ci àdduna bi fu mu mën a xew ñëpp yëgandoo ko mhm. c'est-à-dire euh, moyen de communication yi am na évolution ak développement boo xamee ne donc bu ñu waxtaanoon tënku ci benn déggin mhm. mën na mënoon na yombal parce na ñu naan weeru weer wi weer benn la bay génn màkk bi génn fii yëpp benn la pourquoi pas ñu mën a référé wu rek si màkk af coow lu jeex comme ça lu màkk def ñu def ko au lieu que ñuy euh, ñuy am ay ñuy umandoo différemment ay kii um tey kii um suba kori gi tamit naka noonu mhm. euh, da ngay gis souvent euh, ñu koy daal di wax kon tamit mhm. tey ji mhm. ñu laaj la commission bi bi nga xamante ni ki di Mourchid euh, Iyane Thiam mhm. euh, génn na àdduna mhm. euh, procédure bi naka la waroon demee pour ñu wuutu ko c'est vrai que képp koo xamante ni jiite nga kuréel wala kuy liggéey sax boo génnee àdduna faaw ñu daal di lay remplacer mais procédure bi mhm. su fekkee da ngeen a tënku ci seeni text yi nga xamante ni seen organisation am na ko ci ban anam ban procédure lañ waroon jaar ba wuutu ki nga xamante ni mooy Ahmed Iyane Thiam ba coow li yëpp du ci daal di am bon procédure bi nga xamee ne moom lañ war a jaar. Mhm. man jàpp naa ne si la ñu jaar. mooy ban mooy euh, al mursid yàlla na ko yàlla yaru mhm. te ñu ngi koy rendre hommage bu baax a baax. Sénégal yëpp war nañ ko rendre hommage. Mhm. ndax vingt ans et quelques vingt deux vingt trois ans mu yore commission bi ak li ci ne lépp ci ay coono. ci ay mettit masul yoxat masul dellu gannaaw te na ko li yonent bi di wax dégg de xatta atahul yaqin ba kera mu fekki boroomam mm. yal na ko yàlla dolli yërmande daj na ci lu nekk nag dégg na ci tamit lu ne dégg ci aussi lu ne mm. mais jaraloon na ko ko mm. ndax ci liñ ma nettali mas nañ dem Kaolack nee na bi mu génnee ci oto bi rek dafa daanu dañ ko mujjee fab yëkki ko am ci moom ñeewante mu ne leen mais lii du dara lislaam dafa am ñu daan gàddu jaasi di xeex mhm. te ñun lii rek lañ ci daj kon kooku yàlla nañu ko yàlla fayal mhm. léegi bi nga xamee ne yàlla def na li gën mhm. dafa am ñu mu àndaloon di liggéey ñooña ba léegi ñoo ngi fi ñi mu àndaloon di liggéey am na premier vice président ku toppoon ci moom sës ci moom muy kan muy ki nga xamante ne après bi ñu waxtaanee moom la ñu fal muy Ahmad Cissé Ndiéguène Mm-hmm. Ahmed Cissé Ndiéguène Ahmed Cissé Ndiéguène man bëgg naa sénégalais yëpp xam mooy kan franchement mm. suñ ma ko mayoon ñu tënk rek mooy kan ci tënk Ahmed Cissé Ndiéguène euh, mooy ki nga xamee ne yàlla dogal na mu bokk ci famille Ahmed Baro Ndiéguène bu Thiès mm-hmm. këru diine la bu ñëpp xam ci Sénégal këru xam-xam la këru diine la fa la juddoo yaroo fa màgge fa fa la jànge éducation de base am mm-hmm. fa la ko defee ca Thiès mais bi mu demee ba yàlla may ko mu war a mën a génn jàngi dafa dem fu ñuy wax Tunisie mm-hmm. fa la yokki àlluwaam indi ay liyaasaam moom moomu bi mu ñëwee Sénégal dafa dugg ci administration bi nekk ministère de l'éducation liggéey na fa ay at yu bare bare ba mm-hmm. ay vingt ans et quelques donc après lañ ko jël UNESCO mu ngi may wax rek na ma liggéey na ak. Euh, mhm. amadu Makhtar Mbow lu yàgg. yàgg waaw mhm. Mhm. liggéey na ak moom lu bari. léegi ba mu fa jóge euh, jóge doon na liggéey ak ISISCO aussi muy organisation yu mag. liggéey na fa ay at actuellement nii mu ngi nekk euh, président conseil d'administration benn organisation réewi l'islam yi gën a dëgër ci lislaam ñoo ko organisé. seen siège mu ngi turc. nga xam ne lépp luy patrimoine l'islam ñoom ñoo koy saytu hmm. donc kooku moo toppoon mooy woon premier vice président topp ci al Mourchid Iyane Thiam kooku hmm. la ñu fal actuellement mooy coordonnateur bi kooku yéen ngeen fal waaw parce que hmm. mooy woon premier vice président kii génn na àdduna automatiquement moom moo war a jël gérer intérim bi c'est ça waaw oui kooku lañ fi teg moo fi nekk moo koy gérer actuellement léegi bi ñu ko fi tegee. mais mais Ni... est-ce que temps bi gaawul fi Mourchid di génnee àdduna ak fi ngeen koy utee ku ko wuutu am na ñu naan est-ce que ñii mënuñu woon a xaar ba ci kanam tuuti sax. non fi mu ne liggéey bi dafa war a continuer mhm. léegi vice président lu mu jëriñ est-ce que woon xaar sax ba 40 jours yi passé na loolu la ñu xaar moo tax sax ñu yeexaw xaar ngeen ba 40 jours moo tax ñu yeexaw mais ñun avant bi ñun presse bi jot nañ yeneen communiqué moom laa lay wax nii yoo xam ne même pas 15 jours Mourchid génn àdduna même pas quinze jours ñu jot ay communiqué ñu presse bi voilà loolu nag mooy mhm. beneen problème la boo xamee ne après daañ ci ñëw mhm. mais man bi ñu topp bi ngeen topp ba euh, fal ñi ñu fal moom laa lay wax nii. Mhm. pour wane ne. dalal ah. xelu Sénégal yi. Mhm. nga baal ma. Mhm. pour dalal seen xel wan leen ne al murshid Iyane Thiam liggéey ba nga xam ne moom la sumboon nekk ci ah xar ci tànku tubéyam liggéey boobu ba léegi mu ngi continuer te ku koy mooy li ma la wax nii mooy Ahmed Cissé Ndiéguène ak ñi nga xamee ne ñoo àndoon ak murshid yëpp. du moom rek. ak ñi àndoon ak murshid depuis vingt ans ba léegi ñooñu ñoo organiser wu. bi ñu falee bi bi quarante jours yi passé mhm. ñu waxtaan ci seen biir ne Ahmed Cissé Ndiéguène na jël place am mhm. ratib mhm. gis nañ ko Aline Moussa Samb mu joxe kàddoom wane ne weer moom moom moo ko moom moo am kii bi pour pour xool ko ndax naka jekk mooy kaa mooy kaa mooy bi mooy imaam ratib bi ndax imaam Maodo Sylla imaam Maodo Sylla loola la taxawe woon moom moo leen joxoon pouvoir yi na leen doxal leen ànd ak ñoom de liggéey loola moom moo ko ci loxoom la mujjee moom Aliou Moussa Samb mm. moom Ahmed si si njegéen bii la dégg nga de euh, jox confiance am nee na continuer parce que moo joxoon pouvoir bi Ahmed Iyane Thiam Iyane Thiam léegi moom mu renouveler ko mu da mm-hmm. ko renouveler ci euh, Ahmed Cissé Ndiéguène mm-hmm. léegi bi nga xam ne loolu am na mm-hmm. yamuñu ci commission bi mm. ci njiital Ahmed Cissé Ndiéguène dañu ak ay vice président am bu kun bu xalifa Kunta dañu seeti jiwaat mbooleem. Hmm. këru diine yi. encore dem nañu Touba gi ba ñu demee hmm. xalifa bi yal yàlla yàggal taxawaayam. Hmm. sëñ Muntaga euh, Muntaka moom moo moo moo ñu recevoir waxtaan ak ñun boole ñu ak ndawam bu ñuy wax Daouda Sakho. imaam la. moom moo ko fi nekkal ci commission bi actuellement loolu yàggul. Mhm. ba ñu fa jógee dem nañu laayeen ñu boole ñu ak imaam Moussa Guèye. Mhm. dégg nga ba ñu fa jógee ci la ñu dem Tiwaawan ku ñuy wax Serigne Mbaye. Mhm. bu maam Abdoul Aziz moom la ñu xalifa bi booleel moo ñu recevoir. waxtaan ak moom mu waxtaan ak ñun moom itam euh, euh, al imam Tourbala fàtte imaam Dieng. moom la ñu yabal. pour mu toogal fi Tiwaawan ñoom ñooñu ñoo fi nekkoon depuis vingt ans ba léegi de mhm. ñoo doon représenté ñooñu dañu koy renouveler dégg nga ñu jóge fa dem Njaasaan mhm. ñu demee Njaasaan aussi xalif bi yebal koo xam moo ñu recevoir ñu waxtaan ak moom Njaasaan mhm. bu xalifa Kunta mu ngi ci commission bi mooy premier actuellement mooy premier vice président vice président moom la ñu renouveler waat ñoom. ci yéen si seen commission. mu nekk ci commission. commission bi daanaka mën nañ wax suñu commission d'accord mais daanaka benn la. Mm. parce que dinañ ci ñëw. leeral waaw mais commission bii ma la wax mooy bi fi newoon. bu Mourchid Iyane Thiam bu fekkee ci loolu la ñuy wax. Mm-hmm. ci loolu loolu man ci loolu cadre boobu laay waxee. mais am na beneen commission boo xam ne ñoom ka ñu jiital mooy imam Diène. voilà dinaa ñëw imam Omar Diène. dinaa ci ñëw loolu. mais. Mm-hmm. Euh, bi ñu jógee Ndiassane. ñu ñëw nag Thiès. ci euh, waa kër Ahmad Ahmad Baro Ndiéguène mhm. nga xam ne coordonnateur bi ñu fal bees mhm. fala bokk mooy seen porte parole actuellement dégg nga fala bokk mhm. keroog xalifa bi sëñ niiru yàlla na yàlla dëgëral taxawaayam moo ñu teeru moom itam wax ak ñun macha allah ñaax ñu ndax fépp fu ñu dem rek bañ fa jógee la ñu dem nag Canaba keroog timis fa la ñu fekk euh, ñoom ñëpp nag bañ fa demee dañu renouveler seen confiance. bi ñu amoon ci Ahmed. bi ñu amoon ci Ahmed moom la ñu renouveler waat. Mm. dégg nga wax bi donc loolu la si bi ñu ñëwee nag la def suñu conférence de presse yëgal waa Sénégal yëpp ak adduna bi na leen la nga xamante ni Ahmed euh, al Mourchid Iyane. Mm-hmm. wax dëgg yàlla moom la taxawe woon dara jogu fi li fi ne woon moo fi nekk ba léegi taxawaay bi tey la gën a dëgër ñu ngi ñaan sénégalais yëpp. nañu joxe woon seen confiance. Mhm. Ahmad euh, al Mourchid Iyaan. Mhm. Euh, nañu daan dégloo Mourchid nañu continuer di ko déglu. commission bi nga xamee ne Ahmad Cissé Ndiéguène. Mhm. moo ko jiite ndax liggéey bi day continuer rek loolu mooy li am. léegi nag. wuute am na. waaw léegi nag. Euh, ci jamono boobu am hmm. keneen. beneen commission yaakaar naa ne sax ñoom ñoo njëkk a euh, contacter bi pour wax ni euh, ki lee di imam Omar Diène moo wuutu Mourchid Iyane Thiam ñoom tamit def seen bureau am hmm. seen chargé de comme ainsi de suite seen bureau hmm. mu jaaxal sénégalais ñu ne waa comment se fait-il jóge fii ñuy gis ay ñaari commission wala sax ñett waaw léegi li may ñaan rek mooy sénégalais ñu déglu mm-hmm. ñëpp dégloo Ahmed Cissé Ndiégène ak ñi mu àndal. Mhm. dégloo yeneen groupe yi. yeneen groupe yéen bëgguma tudd ah, tur mooy mais foog nga wax ñu ci imam Omar Diène parce que dangeen ko contesté. waaw c'est que xam nga foog nga wax ñu lu tax ngeen contesté. moom laa la bëgg a wax ni dama pareegul rek. waaw waaw dama pareegul rek. Mhm. Euh, nit ñi nañu déglu ñi nekk ci terrain bi yëpp di oote ne. Mhm. ñoom ñoo yore commission bi bu ñu leen dégloo ak xel. dinañ mën a àtteel seen bopp benn mooy wax nga ne ñoom dañu teel a wax maanaa jot ngeen. waaw matul sax. 15 jours matul sax 15 jours ngeen dégg ñuy wax. ñu ñuy lancer xam nga. Mhm. arab day wax ne kaadal muribu mhm. yaqulu xuzuni mhm. <laughs> gis nga doxalin. doxalin mën na expliquer lu bari. ndax wax dëgg yàlla nit ki génn àdduna te am na mbootaay goo xamee ne yéen a bokkoon di ci liggéey amagul quinze jours nga commencé di wax ne man la loolu jar na xoolaat mm-hmm. jar na xoolaat loolu rekk mën na expliquer lu bari beneen bi mooy soo bokkee nit di liggéey ci benn mbooloo mm-hmm. comme lu mel ni commission bi nga xam ne dafa am ay tex am statut am réglement intérieur waa yow bu fekkente ne ki ko jiite génn na àdduna te yow yéene bu sell moo la tax a jóg mhm. wax dëgg yàlla soo bëggee oote wane ne yow yaa koy remplacer war nga mën a dem ci ñi nga ña mu àndaloon nag di liggéey ak ñoom mhm. ay at nga waxtaan ak ñoom lu ngeen jubboo ngeen doxal loola mais yow nga beru yow kese mënoo tànn ñetti nit wala ñeent groupe am na groupe am de moom laa lay wax ni waaw. léegi créer groupe dafa yomb Imam Omar Diène am na groupe am am na mais groupe boobu waaw est-ce que ña ne hein mhm. ñooy ñi nga xamante ni ñoo àndoon ak Mourchid Iyane di liggéey est-ce que ñooñu la wala beneen groupe la loolu dama la koy bàyyil nga gëstu ko. Ah, yéen lañ koy man mhm. loolu su ma maanaam mënuma la ci wax tamit am nañ droit ñëw fii andi ay. moom laa lay wax nii parce que ñun contacter nañ man contacter naa ko Imam Omar Diène mu ne disponible su disponible mën na ñëw euh, joxe version voilà mhm. loolu tax ma bëgg moom mu waxal boppam. Mhm. n'est-ce mais man li ma ci xam rek. Mhm. mooy franchement euh, bu fekkonte ne lislaam moo tax ñuy doxal moo tax ñuy wax. bu fekkee rafetal. ak defar moo tax ñi nga xamante ne ñooy oote bàyyi fi iyaan ak ñi mu doon liggéeyal du ñu doxalee noonu. mais moom kon kan moo ko jox pouvoir boo xam ne euh, ci commission bi la bokkoon n'est-ce pas imam Omar Diène ci la bokk kan moo ko jox pouvoir mu jékki-jékki rek am fitu ne moom moo wuutu Mourchid Iyane Thiam même pas dix jours wala quinze jours après la décès waaw def bureau am loolu mooy li ma la wax rek nit ñi bokkuñu kenn ku nekk ak li la sa fit may ak li la sa xam-xam may sa expérience nga doxale noonu doy na nit ñi wala doyu leen loolu yàlla moo xam. mais mais moom instant bi dafa mel ni moo gën a euh, commission moo gën a fës seen commission lu ko waral. waa dama lay wax ne rek. Mhm. gis nga barigo bu deful dara. Mhm. day bari riir. Mhm. mais bu feesee dell danaan teg su wax jotee mu wax su jëf jotee mu jëf dégg wax bi. maanaam mbir yi nekkul ci ne riir wu bari wax ju bari mm-hmm. wala déedéet lii diine la lislaam la dafa am conduite boo xamee ne dafa war danga wax bi beneen bi mooy mm-hmm. wax naa la léegi na la bu fekkente ne danga nga bokk ak ay nit di liggéey mm-hmm. pendant vingt ans et quelque kii ko jiite génn àdduna yow bu fekkee da nga bëgg a defar. Mhm. da ngay ñëw waxtaan da ñëw waxtaan ak ñii doon liggéey te ñooñu ñu ngi fi ba léegi. mais nga beru fële yëgaloo leen oowoo leen waxoo leen ba pare def sa déclaration mais actuellement loolu ku ne mën na ko ku dëgëru fit ku ne mhm. mën nga loolu. Ah, ku ah. ñeme yàlla ku ne. Mhm. mën nga loolu. mais kuy def ngir yàlla dégg nga doo defee noonu mukk ndax lislaam bu lañ bu fekkee jàng nga ko xam ko daf la wax ak diinu nasiha. diine laayante biir la al amru bil maaruf wa nahyu anil mhm. lislaam nee ne da digle lu baax di tere lu bon kon moom bu fekkente ne walla ñoo ñu nga xamante ne dañu beddeeku su fekkente ne ñoom li nu jàng nañu lii xam ko mais nañ ko jëfee kon beneen bi mooy rafetul nga créer mhm. association mhm. pour lan pour bennoo jullit yi. Mhm. ba pare yow sa association boobu wala sa mouvement boobu ngay beddeeku. di leen fa bàyyi. moom la ñëpp di laaj dafa paradoxal. Mhm. dégg nga. Mhm. looloo tax beddeeku bi moo dul yoon. yow kañ bul dem. àndalax mbooloo mi. waxtaan mais moom nee na du tekki ndombal tànkam de imam imam ji waaw loolu moom la concerné. tamit ñu ne li indi euh, jafe-jafe bi ak réeroo bi ab si seen biir. parce que yéen da ngeen di woote pour julli di booloo nekk benn di woorandoo di woreendoo nekk benn mhm. euh, bu fekkente ni nag euh, kuréel googu nga xamante ni ñoo war a euh, tax julli di di woorandoo di woreendoo ñoom dañu tasaaroo seen biir ça pose problème mhm. am na ñu naan li leen jaxase moom mooy subvention bi nga xamante ni état wu Sénégal da ko doon jox commission bi ñu xayma ko ci trente six million de francais fa mhm. nga xamante ni daf ko doon subventionné chaque année commission bi moo waral tey jii xeex bi am si seen biir ku nekk bëgg a jiite commission bi lan nga ciy tontu. waaw man moom wax dëgg yàlla li ma ci xam. Mhm. mooy commission bi amul ñetti at amul ñaari at. am mhm. na vingt trois ans et quelques. Mhm. subvention yooyu ñuy wax d'après li ma ci xam. bu matee trois ans si lay am. yu mujj yi bi yu mujj yi. trois ans ci vingt ans et quelques. parce que nee dinañ jox euh, état dina joxe trente six million Euh, ki jiite euh, euh, commission bi daañu ko jox oto am daal ay ay ay ay privilèges yoo xam dina ko am moo waral jafe-jafe bi nga ne yow subvention boobu. Mhm. bi mu commencé léegi matul ñetti at. ci lay ci daal ci yem. Mhm. ci loo xamee ne am na vingt ans et quelques. Mhm. léegi vingt ans et quelques yooyu kan moo doon financé kan moo doon def alalam ñan du ñenn ñu dul ñoom ñii nga xamante ñoom laa lay wax nii ñoom Mourchid. ñoom Ahmed Cissé ñoo doon génn seen i poche di financer ñoom nag bi ñu jëkkee def tournée. Mhm. sëriñ si kenn ku nekk am na ci ñoo def nañ ay subvention mhm. dégg jàpp si jàpp ci ca début ba. mais commission bi yéen yan yan activité ngeen di def bañ war leen financer. parce que commission boo wax waaw waaw commission bi ban yan activité ngeen di def commission bi nag moom dafa nekk commission l'islam mhm. c'est-à-dire moom pour bennoo jullit yi ci wàllu weer yi du weeru koor rek mais weer yëpp ndax dina lislaam mhm. dégg nga weer yëpp a ko concerné mhm. mais dafa raw rek muy weer yi nga xamante ne mooy weeru koorite euh, koor afwan ak weeru tabaski yooyu moo gën a fés ak tamxarit dégg nga mais weer yëpp la waaw ñoom weer yëpp la ñuy yittewoo mhm. léegi nag euh, euh, ñoom comme dañu nekk ci commission bi di liggéeyal lislaam mhm. lépp luy yëngatu lislaam rek daf leen di ne maanaam këru diine yi nga xamante ne ah wala association islamique yi sànq fàtte naa mouvement Ibadur Rahman mhm. ñooñu ñu ngi ci commission bi ba tey ji am nañ ay membre ci commission bi dégg nga donc euh, képp ku ci xewle mhm. moo xam lu neex la wala lu naxari ñoom dañuy dem fekki la jàppale la ca loola pour relation yi gën a dëgër bennoo bi gën a nekk benn. Mhm. donc ñoom seen ay activité aussi bokk na ci di def ay formation pour imam yi. Mhm. dégg nga di di yokk seen xam-xam di leen euh, nu mu tuddati jàppale ci seen wàllu dundin ak yu demee noonu donc commission bi. Euh, soxla na lu bari lu bari. ci wàllu ndimbal waaw kon kon état bi loo tax mu doon yëkkati 36 million chaque année. di ko subventionné la commission xaw ma exactement sax ñaata la parce que loolu hmm. daaw ñu ko kii mais daal subvention bi looloo ko tax a jóg mais xamoo ñaata la 36 millions yi munoo ñoo confirmer waaw wala déet ñu xam ñaata la xëy na ñeneen ñi mën nañ la ko wax mais man mais mais nga bokk ci commission bi te loolu mosoo ci am yenn information yi lu ko waral parce que xam nga commission bi dafa ku doon domaine boobu laa lay wax ne mhm. franchement bu fekkente man nga dem ci ku mel ni coordonnateur muy Ahmed Cissé. Mm. wala ku mel ni moom. Mm-hmm. ñoom ñu gën la ko leeral. Mm. waaw ci côté. ci côté côté yow daa bëggoo faa dugg te pourtant nee nañ loolu moo leen jaxase. waa kay léegi. léegi la xam nga lu tax nit ñi wax ne moo jaxase. parce que ñiy oote. Mm-hmm. dañu appuyer ci côté xaalis lu bari. waa parce que nee na te bi xaalis taxu ko jóg. waaw parce que Imam loolu la wax mu ne. Euh, état bi da doon joxe plus de trente millions mhm. oto ainsi de suite euh, te loolu c'était pour fay localu mhm. euh, commission bi mhm. te Mourchid dafa jëloon commission bi def ko ci këram yooyu yëpp yooyu yëpp ay wax la yoo xamee ne xëy na bon moom la gën a concerné daal que ñun mais nit ñi bu ñu la déggee nga wax rek dinañ xam li tax nga jóg mooy li ma la wax nañu déglu bu baax ñun commission bi xaalis taxuñu jóg franchement parce que mm. ku liggéey vingt ans ñu door lay subventionné yow xaalis taxu la jóg donc xaalis boobu warul indi réeroo ci yoon mm. bu fekkente ne suñuy objectif mooy bennoo jullit yi ak yu demee noonu léegi nag su xaalis duggee ah euh, Imaam Diène de xaalis moom bu duggee ku ne mën nga wane sa jikko wan mm. nga wane donc comme ñi nga xamante ne ñu ngi ñoo ñoo beddeeku ñoom foofu la ñu gën a appuyer moo tax ñu bari sax foog ne. Mm. ñoom affaire yi affaire u xaalis la affaire u business fàtte nañu sax ne l'islam moo ñu tax a jóg parce que débat bi actuellement li mu waroon doon mooy nan la ñuy faxeyee ba euh, séentu bi. Mm. ñu jaaral ko ci yoon. Mm. weer wi bu génnee ñu xam nan la ñuy communiquer ak nit ñi bu génnul ñu xam nan la ñuy waxee ak nit ñi nit ñi gën a. am lu leer ci wàllu weer wi génn na wala moo gën mm-hmm. ñuy xuloo ci wàllu loo xam ne ne daf ñu ci dab rek léegi naka ngeen euh, fas yéene def euh, imam Moustapha Samb mhm. parce que dans dix jours mhm. euh, normalement war nañu um koor mhm. incha allah léegi seen ñaari commission ah, wala sax ñett parce que parfois sax ñu ne am na beneen beneen groupe xamu xamuñ leen en tout cas ñi ñu xam mooy seen commission ak bu ñoom imam Diène mais naka ngeen fas yéene organiser woo pour mun a wax sénégalais yi woor leen wala woori leen fi mu ne nii liggéey bi. naka la mën a demee ñun ban commission lañ war a déglu. moom laa lay wax nii. Mm-hmm. nee naa la euh, bu fekkente ne ñu ngi doon déglu almursid iya mm-hmm. moom day dem na waaye commission bi mu ngi fi ba léegi. lu tax parce que moom ña toppoon ci moom ña mu bokkaloon di liggéey ba léegi ñu ngi fi ñooñu nag. nañu daan doxale ba léegi ñu ngi koy doxale mooy lan mooy ñu ngi séentu mhm. séentu nañu bi paase wax nañu nit ñi bañ ko gisul dañ ne dañu mottali ñu mottali chaban trente jours mhm. dégg nga loolu mooy continuer fekk ay fan bu soobee yàlla yéen kat ban ban groupe mooy dem RTS non non fi mu ne nii waaw parce que noonu lañ ko daan defee noonu lañ ko daan defee mhm. dégg nga ñun danañu def tout hein pour RTS resevoir ñu. Mhm. dégg nga mu continuer jàppalante ak ñun na mu daan jàppalante ak al Mourchid Iyane Thiam. Mhm. ñu xamal que ne nag ñun bu dee légalité ak légitimité wax dëgg yàlla na ko yaan amee woon noonu lañ ko amee ndax ñoo toppoon ci moom te ñi ko joxoon seen kàddu ñëpp. Mhm. dem nañ fa ñu renouveler seen kàddu looloo boobaak léegi amul deux semaine d' accord lii ku mu doy. Mm-hmm. nga jëflante ak ñun mais itam euh, moyen de communication yi mais bari na. Mm-hmm. bari na buñ ko jaaralee RTS moo ñu gënal. mais parce que fa la fa daan jaaree. waaw mais bu fekkente ne xëy na ñoom gis nañ ne dégg nga de euh, ñu bañ ko fa jaaralee. Mm-hmm. ñoom ñoo xam li tax mais ñun moyen de communication yu bari mën nañ ko utiliser pour wax ak sénégalais yi. même même euh, bu weesoo sax jafe-jafe bi am ci commission bi keroog rek ñu ngi dégg euh, ci déclaration bu euh, aline Moussa Samb nekk imam bu grande mosquée bu Dakar moom tamit mi ngi wax ni même association imam et ouléma du Sénégal da ngay gis ku nekk day jóg rek ne moom mooy jiit bi. Hmm. mu ne loolu sax faaw tamit ñu daal di koy organiser. xoolaat ko lan nga ci mën a wax. maanaam daal ku nekk ngay autoproclamé wu. maa jiite association imam et ouléma du Sénégal jamono moo doy waar. Mhm. nit ñi aussi dañu bari te wuute pour canaliser leen ci benn conduite ci benn doxalin ci benn mhm. méthode mhm. moo yombul mhm. moo yombul ndax dafa yomb tey kenn ku nekk rek oote mbooloo ci biir mbooloo beddeeku kenn ku nekk la motive motiver nag yow yaa ko xam mais foofu li ma fi wax rekk mooy yonent bi dane al muminu kayyisun fatinu jullit dafa war a ñaw xel dafa war a muus ba du ku jóg rek yóbbuwaale ko dégg nga laa taqulu laa takunu immia waaw ah, immia taqulu ana ma annaas fu nit ñi dem rek fa nga fàq jëm nee na déedéet walakin wattinu anfusakum mm-hmm. jullit day yeewu mais day day day day day résister am ndëgërlaayu boppam ba du lu ñëw rek yóbbu ko loolu moo ciy dimbali nit ñi ah. Mhm. mais nit ñi doy nañu waar goo xamee ne bu booboo lislaam ngir yeneen ay objectif yu dul islaam mhm. du dara ci ñoom wax ngir nit ñi gëm leen bee ñu am li ñu bëgg ci seen kaw loolu du dara ci jamono bi ñu toll mhm. mais nag nit ñi ñoo war a yeewu waaw ñoo war a yeewu xam bu ñu gisee lu leen jaaxal ñu dem ci ñi xam mais tamit xam nga doon na gën a rafet sax parce que yeneen kuréel yi di nga gis parfois mu am problème kenn génn sax def kuréelu boppam euh, di nga gis syndicat dina am problème kenn génn def syndicat boppam beddee ko parti politique dina am problème am ku génn def parti politique am wala mouvement am génn carrément mais bu fekkee yéen imam yi comme ça imam et ouléma si benn association bi nga bëgg ci gis ñaar wala ñetti président ku nekk ne man maay njiitu euh, association des imams et oulémas du Sénégal ça pose problème dañuy laaj mais qu'est-ce qui se passe parce que ku nekk mënoo génn nga ne même association bi man maa ko jiite am ku topp si yow ainsi de suite ainsi de suite loolu ban explication la mën a am waaw mooy li ma la wax rek parce que kenn ku nekk ak li lay motiver xanaa dafa am dara lu lu nekk ci euh, biir association yooyu non non maanaam association bu fekkee bii la mhm. commission bii nii bi ñuy wax nii. Mhm. moom laa la wax ne ku beddi ku beddeeku. yow mhm. yaa beddeeku rek mais commission bi moom mu ngi fi ba léegi. mu ngi waaw yow yaa génn rek oote sa mbooloo ne mhm. nangam nangam wax li la neex ak say argument. mais mbooloo mi ba léegi mu ngi fi moom laa la wax kàddu sëriñ si yëpp. Mhm. seen représentant yëpp këru diine yëpp. ñoo ñuy oote dem leen nga laaj leen ndax am nañ loolu. mais tamit imam bu euh, grande mosquée bu dakaar yéen lay soutenir. Ah. imam Diène nee na li tax imam boobu di leen soutenir ñoom ñaar dañu am problème. non loolu. dañoo am problème personnel moo tax mu soutenir leen. am na ay wax yoo xamee ne dafa terre ba nga xam ne. Mhm. franchement du waxu kilifa. al imam ratib moo remplacé dégg moo fi taxaw taxawaayu Maodo Sylla. Mhm. imaam ratib yi fi jaar yëpp moo taxaw seen taxawaay moom deful lu dul renouveler la ña jiitu defoon deful lu dul loolu <laughs> dafa renouveler rek. Mhm. léegi ki beddu fële di wax ay waxam naan lee tax ak lële. Mhm. na ko nit ñi na nit ñi déglu rek ba xam ndax loola yanu na maanaa wala déet. imaam Dieng tamit nee na dañ koo agressé apparemment yéen lay accusé. non man yëg ngeen agression bi yëgoo leen ko. waaw loolu moom wax dëgg yàlla dañ ko fekk bureau agressé ko ainsi de suite waaw loolu moom wax dëgg yàlla moom mënuma la ci wax dara hmm. waaw léegi imam dinañ la laaj euh, ci euh, peut-être temps bi bareetul quelques mm-hmm. minutes rek moo ñu dese. Mm-hmm. Euh, yéen tamit da ngeen yor kàddu askan wi. Mm-hmm. nekk ay régulateur ñoo xamante ni su ngeen di wax ñëpp leen di déglu. lan moo tax souvent bu askan wi di nekk ci ay jafe-jafe yu taratar parce que gis nga temps yee dëkk bi tàkk na jaxasoo lan moo tax souvent imaam yi du ñuy jóg. parce que gisoon nañ fi imaamu Géejawaay jóg di def marche ci jamonoy Ablaye Wade parce que sonnoon nañ ci coupure courant yi lan moo tax ci problème sociaux yi imaam yi yéen du ngeen def di organiser ay marche comme kuréel yi ngeen yor euh, def ay manifestation carrément pour alerter euh, nguur gi ci jafe-jafe askan wi jouer ay euh, rôle régulateur parce que loolu lépp bokk na ci li nga xamante ni imaam yi war nañ ci dox waaw bu fekkee dëppoo nañ ak li lislaam wax Euh, imaam yi maa ngi leen di gërëm di leen sant. di mhm. leen ñaanal yàlla. Mhm. lu bari su baaxee ci dëkk bi man mi xam naa ci dara. Mhm. imaam yi la gis nga imaam. ci Sénégal taxawaayam du jàkk rek. du jumaa rekk mais gis nga imaam yu bari tey. li ñuy regle ci ay problème ci kër yi. ci diggante yi ci mariage yi. Mm-hmm. mais bu ñu la ko waxoon macha allah. Mm-hmm. seen poos du fekkee problème mu ñu bari. Mm-hmm. ñu bari bu ñu jaaxle xam nga imaam moom. il est toujours accessible. accessible. dafa yomb. Mm, nga dem fekk ko këram. mu xelal la. mu xelal la jàppale la jàppale la. loolu mooy taxawaayu imaam yu bari ci Sénégal. léegi loolu moo tax ma di leen rendre hommage ñoom itam. Mhm. di leen wax gàcce ngaalaama man xam naa li ñuy daj ñoom. waaw xam nañ ko li ngeen di def ci biir quartier yi. waaw lan moo tax euh, parfois yéen imaam yi du ngeen organiser. moom laa lay wax nii wala fësal ne ah nguur gi ñu ngi lay alerter ci li ak lii. comme par exemple gis nañ fi ndaw yu bari di dee ci géej gi mhm. pratiquement état bi dafa négligé carrément affaire Barça Barsax ay doomu Sénégal yu baree bari mhm. euh, des nañ ci géej gi situation yu mel noonu bu amee lan moo tax imaam yi yéen ak seen association yi bu dee dix wala vingt imaam sax yuy génn def benn marche pacifique euh, du ngeen koy faral di def foofu laa jëmoon waaw gis nga jumaa yu bari mhm. boo ko doon suivre thème yi ngay wax yëpp traité nañ ko foofu ñun suñu association par exemple ayof chaque ajjuma am na thème boo xamee ne jumaa yëpp ñoo koy waxtaane bayaan lay doon jumaa yëpp moom la ñuy def si xutba yi moom la ñuy defee bayaan waxtaan ak nit ñi yooyu dañ ciy sàmmaale actualité nga xam ne bu dara xewee ci dëkk bi ñu def ci thème waxtaan ak nit ñi wax leen fi nu war a teg seen tànk loolu masuñu ci jog te loolu mooy sunu taxawaay imaam yi ba ñu dalee wax yàgg na te ba léegi ñu ngi wax yii xew nii def nañ ci ay waxtaan xamal nit ñi ne réeroo mën na am mhm. mais warul yàq diggante diggante yi man nga gisee nii kii gisee ne kii gisee ne mais nanu waxtaan beneen bi mhm. wax nañ ne réew pour mu tegu ci yoon il faut mandute am justice fokk mu am ci réew mhm. kooku moom mooy base bi njëkk ndax nit ak moroomam bu yégee ne yamalew ñu leen rek foofu jubboo day jafe hmm. maandute beneen bi mooy euh, euh, nu mu tuddati yamale ñëpp si ne euh, bu kenn yëkki kenn wàccee ki ci des loolu itam day indi réeroo dégg wax bi hmm. su ko defee yooyu imaam yi waxtaan nañ ci lu dul benn lépp luy tax stabilité am mën naa la wax ne thème yooya. Mm. traité nañ ko ba. mais loo tax du ngeen def ay marche imaam. ay marche yooyu nag. waaw comme ni ko imaam Géejawaay defee woon ci ci ci nguuru Ablaye Wade. affaire bi marqué woon vraiment. dëgg la waaw lan moo waral. du ngeen am initiative yooyu organiser ay marche pacifique. waaw loolu bés boo xamante ne. Mm-hmm. dem nañ ba gis nañ gis ne jar na ko. Mhm. bu boobaa wala ñemewu leen takk der yi du question ñeme. Mm. mais imaam. Mhm. daf doxalinam bokkul ak doxami doxalinu n'importe qui. Mhm. imaam moom franchement. Euh, doxalinam daal moom war na uute. Mm, ak euh, la majeure partie ni ñuy doxalee. dëgg la Imam Moustapha Samb bëggoon nañu laal tuuti ci koor gi mais temps bi dab nañu xam naa dañ koy bàyyi ba prochaine fois incha allah ñu bàyyi la nga tàggatoo ak auditeurs yi kon ñu ngi ñaan koor googu nga junje yàlla nañ ko fekkee ak jàmm mm, amin amin euh, yàlla na yàlla def ñëpp ànd woorandoo ko woorindoo ko euh, ñu ngi gërëm nag wax dëgg yàlla waa réew mi FM mm-hmm. soxna Ndey Kumba Moro ñu ngi lay gërëm mm-hmm. ci dalal bi nga ñu dalal Euh, may nga ñu possibilité ñu leeral yu bari. Mhm. ñu ngi ñaan yàlla daal yàlla defal ñu sutura defal ko mbooleem jullit. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu koy remercier bu baax a baax kile di imam Moustapha Samb ci disponibilité am nekk membre euh, bu commission de concertation sur le croissant euh, lunaire nekk président association des imams et oulémas de Yoff professeur de langue et littérature arabe ñu ngi koy remercier bu baax a baax ci disponibilité am ak leeral yi nga xamante ni indi na ko ci coow bi am ci commission boobule yeneen parti nag muy euh, côté imam Omar Diène su ngeen bëggee. mën ngeen ñëw euh, incha allah yéen tamit indi seen leeral exactement lan moo tax ngeen samp euh, seen commission mais lu ñuy ñaan rek ngeen waxtaan ba jiboo mu nekk benn commission parce que ci lu ni mel euh, la julli di mën di woorandoo di wóoreende parce que commission bi loolu moo ko daal di tax a jóg ñu remercier Mamadou Diaw Diallo bi nekkoon ci technique bi di leen remercier bu baax yéen suñu auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi de 10 à 11 ba samedi prochain émission bi mën ngeen ko dégluwaat ci suñu chaîne YouTube mi officiel wala ci suñu portail internet réew www.rewmi.com